mbirum sumba jum nag wax ngeen ko léegi ñun politiquement amatuñ luñ fi tiit parce que jàpp nañ ne nit ñi dëgg la àndal nit ñi ku bëgg lu baax la ñuy àndal donc ñun la ñu àndal loolu xam nañ ko waaye problème yi ñu ngi fi tar lool loolu xam nañ ko tamit xëy na man de mënuma saafara lépp ndax état dafa am nu muy doxee dafa am ñoo xam ni état daf leen jagleel yenn mbir yi ñooñee dégg naa seen wax ñun de am nañ sañ-sañ wax ak ñoom incha allah dinañ wax ak ñoom waaye balaa loolu di egsi ñun li ñu mën ñu ngi koy def te dinañ ko wéyal mooy lan mooy que nous soyons de relais sociaux que bu état bi taxawul ñun ñi nga xam ni état tax na ba ñu am tuuti wërsëg di ko sant yàlla ñu mën a nekk seeni i wet lu ñu mën a saafara ñu saafara dégg naa mbébét yi ci tamxarit yi ci pèlerinage bi ci jigéen ñi ak lépp dégg naa ñun de taxaw nañu parce que yaakaar nañ ne am nañu vision pour doxal. Médina te Médina ku ko wax mënoo si génnee Soumbédioune ñun ñëpp fi lañuy ñuy jëndee jën suñu ay mbokk fi nekk bu Soumbédioune bu Médina feebaree Soumbédioune sëqët bu Soumbédioune feebaree Médina sëqët donc ñun faw ñuy jëflanteex yéen di nekk ak yéen di xool naka lañu ñu mën a doxee doxalee suñu gox donc loolu dina tàmbali bu ma rencontrer les jeunes les anciens bu ñu tasee ñu wax leen ñun lu ñuy lu ñu bëgg lu ñu namm si biir quartier bi ndax si biir Soumbédioune ñoom aussi ñu wax ñu ñu xool naka la ñuy euh, boole loolu yëpp am loo xam ni dina baax pour suñu quartier ak pour suñu Soumbédioune. di wax Cheikh mu bu jàppale waa Soumbédioune mu defal ñu projet Soumbédioune comme sànq lu wax neen dina jël ay troisième âge mu ànd ak ñoom ñëw dinaa jël ay Ousmane Diop jël Ogu Diop jël ay jeunes ànd ak ñoom mu saafara Soumbédioune parce que Soumbédioune mu ñu avancé la ñu bëgg. Cheikh Ba nag. ñëw na tey gis nañu ko a ah, gis na waa Soumbédioune ñëpp taxaw ci ginnaawam li ñaan nag ki moom na góorgóorlu ci waa Soumbédioune gis leen ni mu ni ni mag ñi taxawee xam nga nun ñi nga xam ne ay troisième as ñu yor ñetti tànk bàyyi nu yitte yëpp ñëw ngir yàlla ak yonente ba ak seex ba moo nu ko ji jafe-jafe yi nga xam ne nag moom lañ fi am wax nañu la ko sànq nga dégg ko danoo bëgg na nga àggal ni ko président mu saafaraal nu ko ci tefes gi ay mag lanu suñuy doom lanu am mu jàppale ñu ci gi ak yàq mi ci nekk mboole seen kuy yàq nañ la teg ci yoon maa ngi ñaan loolu Cheikh Ba àggal nu ko président bi waxal nu ko ko Cheikh Ba nag nu ngi sa ginnaaw tey nu ngi sa ginnaaw ëllëg sama jun gépp ak Médina gépp a ngi sa ginnaaw maire Médina na vraiment dañ ko solo pour récupérer ko jox ko ti Tidiane Ba loolu lay xeex loolu lay xeex guddi bëccëg loolu lay CATB ñu leen gërëm ñu leen sant yàlla ñu yàlla may ñu récupérer meeru Médina